jamonoy campagne électorale politiciens yi di jug ngir jël borom oto ngir amal seen mitin ci biir mitin yooyee car taxi bàyyiwuñ leen ngir mën a amal seen i mitin wala sax seen i caravane sëriñ bi xam leen nag moom ñi ngi ciy gis seen bopp bu baax ndax bu dee xaalis rek am nañ ko ci. oto sax day manqué ñëpp am xaalis ba des coxeur yeeg oto yeeg ñëpp am xaalis. sama liggéey wax dëgg yàlla yoon tamit ni mu a dox yëpp maa ngi nii doxee sax daawu ni ndax ñëpp a ci gis seen bopp jaakate yeeg ñëpp a ci gis seen jaakati rajo yi sax jaakati rajo yi ndox mu sedd mi sax dañuy topp dañuy topp campagne bi di ci xaalis xalaatam boobu wuuteeg lool xalaat bi nga xam si ne moom la waa ji am waa ji di xam ne moom seen liggéey mi ngi dox ci leneen lu dul politique bi niñ daan dawale noonu la ñuy dawale client yi niñ daan demee ñoo ngi dem amuñu benn problème waaw doy doy lu sëkk ci liñ nga xam ne moom mooy suñ gaaras bi rek ndax at yi yëpp léegi fi lu jiitu politique bi léegi fi ne ci lañ daan xëy ci lañ ci lañ ñuy gontu te suñu wërsëg yëpp léegi fi lañ ko la jëlee kon léegi fi ne man man sama gis-gis mooy léegi fi ne ñeem ci doylu ci li nga xam moom lañu sëñ moom moom lañu moom lañu suñu jox rek léegi fi ne ci garas bi waaw ak lu ci mën di xew ñuy xam ne ne bu ci ñi gisee seen bopp tamit ñenn ñi gisuñu seen bopp